sunu maam aussi Pape Sam Mbaye mhm. bu daan chantonné da ngay xam ne kii mhm. mën na mais musul bëgg topp voix bu parce que nee na siw dafa dafa metti mhm. dëgg la am nañ sunu ay ndijaay ku su mel ni Ousseynou mbay moom it euh, yàgg na yëngu ci ay zikar di ko def bu baax macha allah am na suñu beneen ndijaay aussi Youssou Ndour moom di yëngu ci ay woyu kii musique uh-huh. ñun daal dañ ñëw fekk ci kër gi mais man dama bëgg sëñ Touba mi ngi wax sànq ne sunu parents yi uh-huh. ñu ngi leen fekk ñu nekk ci yoonu Sidi Hadji Malick uh-huh. may nuyu mbooleem Tidiane ndax ñoom àjjana lañ jóge te àjjana la ñuy dellu waa kër waa kër Sidi Hadji ndax du Sidi Hadji Malick rek moo fi moo fi nekkoon mais bu ñuy tudd ay nitu diine dañ koy tudd mm-hmm. te li nekkoon ay millions yu millions yu mag la billaahi loolu rek waaye budul fay la te loolu moo ko jaayante moo ko liggéey mm-hmm. xam nga yàlla aussi mooy mooy tracé destin ma bëgg sëñ Tuuba mm-hmm. di ko wayantu commencement bi c'était compliqué parce que ci ay doomu alkaati lañu mm-hmm. suma papa am de tenue la woon mm-hmm. <laughs> sama yaay uh-huh. nekk prof anglais eh. xam ne jàng la ñu sant et puis ñu dëkk ci camp militaire ñëpp ay doomu alkaati lañ ñi ay doomu commissaire ñi ay mm-hmm. doomu liet naa may profité di nuyu sax sama ami <laughs> d'enfance yëpp ah. <laughs> di leen bëggee uh-huh. même sama gars yi ay gendarme lañ ñi ay sapeur ñi ay policier uh-huh. te ci voie boobu lañu ñu parents yi tegoon ñu jàng devenir des personnes xam nga uh-huh. ku nekk nekk quelque man ma bëgg a way sëñ Touba dama bëggoon dama mës a bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall depuis école moom moo ma gënoon impressionné mu bëgg a bàyyi faali comme lu mu wax sànq c'était pas facile mm-hmm. du tout vu le parcours ak fi nga bokk ak ni nga fexee ba génn waaw euh, te ba tey sax yaa ngi fi bi ni nga fexee tey ba tracé sa yoon waaw euh, waaw yombul woon mm-hmm. yombul woon et ma bëgg a bàyyi faali fu ma dégg bàyyi faal ma dem seetaan leen di leen déglu affaire yooyu quoi. bëgg leen. Eh, affaire yi commencé compliqué parce que laa nuit da war di réviser dem tëddi. nga bàyyi fi say kayit dem xam nga parent yi dañ naan non arrête taxawal jàngal affaire yooyu ñuy làqatu di dem ay xelkom. waaw. bu Saali wootee ñu dem. dem wuyu ko ànd ak sunu sëriñ sëñ Afia mu sëñ dem ay màggal am nga demoon naa fi ay xombol def fi ab diir ay mm-hmm. daaraam mm-hmm. daan dem xayra ak yépp mais daal mm. bëgg ay way sëñ Tuuba moon ci dugaloon mm-hmm. boobu dinaa dem ba ci am fukki dërëm boobu da ngay sa bopp bu cant amee fu sori da ngay paas ci kaar bi boo demee nga joxewaat ci daayira bi xam nga ak yooyu daal uh-huh. ñun daal bëgg sëñ Tuubaa mooñ ci dugal uh-huh. te wax dëgg yàlla rëccu wuñ ko xol ko xol bu ko bëgg it uh, day nekk xol boo xamante ne day oyof laab te ñëpp lay xajoo ñëpp lay xajoo rëccu wuñ ko bon ah li ci yokk rek mooy képp kuy xale di bëgg di woy sëñ Tuubaa uh-huh. mën nga ko boole ak étude bu dul étude mën nga ko boole ak métier dëgg la xëy na ñun xëy na règle boo gis mën na am exception mhm. bien na boobu offari bi ak sëñ Touba ci boppam am lu mu namm mission wane ci njóogu affaire effectivement mais nga boole kook métier wala jàng wàññiwul dara. wàññiwul mhm. dara day gën a yokk sa performance rek. effectivement maane mu mel ne day conseil bu fort. Mhm. bàyyeekoo ci njógu afiya mhm. nit ki dund lenn rek moo la mën a jox li la xamante ni moo la mën a jariñ. Euh, toujours nag dama am habitude di ko wax. Euh, dafa am loo xamante ni saa bu ko suñu borom dogalee ci yow mu bokk ci sa parcours ak sa destin. mënoo koo échappé donc yàlla ñu yàlla dimbali ndax lépp benn la mm-hmm. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mm-hmm. mais moom dafa bokk ci artistes yi nga xamante ni euh, comme euh, li mu wax euh, maa ngi soo ko comprendre nag le pourquoi mm-hmm. parce que boo ko woowee ci xaadari mu dem boo ko woowee ci ci murit gi mu dem ci jaar yi macha allah donc dafa am benn unanimité bu ñuy gis ci jëmmam ji te loolu c'est pas du tout évident donc mu nekk lu am solo waaw foofu aussi may profito di nuyu ñi nekk ci xaadir ñaseen mhm. tiijaan mhm. parce que ñoom ñëpp dañuy bëggee njóogu afiya te comme li nga wax mhm. xaadir yi dañuy aye invité ma tiijaan ñaseen te li ci gën a doy waar mooy njóogu sëñ Tuubaa rek lay waay kon mu lay won sëñ Tuubaa wax wax nga ñëpp boo nee Baay Ñas wax nga ñëpp boo maam li maam wax nga ñëpp kon mhm. maa ngi nuyu képp kuy sama soppe mhm. nekk xaadar tijaan ñaseen laayeen mhm. canaba waa njaasaan ba ci chrétien yi maa ngi nuyu ñëpp pour dëggal li nga wax ñoom ñëpp dañ may invité te ku la woo wayal ma sëñ Tuubaa muy lu am solo yaakaar naa ne waxtaan wi neex na ba noppi waaye li leen ci xaar moo gën a neexati maane mhm. dama lay bàyyi rek nga pëtaxlu ci say actualité laata may ñëw nag ci xiin yi man moom bàyyee ma xiin yi <laughs> ci kàttanu suñu borom euh, nga ñëw rek ci actualité yi nga xamante ni euh, day doomi réew mi mhm. nekk porteur de voix du ñàkkit mu am mot bu mu war a mën a adressé à sa population à sa nation donc tey fan ngay njëkkee. voilà sànq dafa am benn message bi nga xamante ne euh, def na ko jagleel ko ndaw ñi. ne leen carrément kat li nga xamante ne dañ koy def mun nañ ko booleek métier wala étude du si yàq dara mm-hmm. euh, donc euh, nit ku soxor ak ku iñaan euh, du def lu ni mel mm-hmm. parce que moom amaana yoonu Serigne tubaab diis na diis goo xamante mm-hmm. ne mënu ko woon boole dara mais mu ngi ñaax ñi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñooy lu ni mel ndaw ñi bëgg yoon boobu ñu koy ñu koy ñu si bàyyi xel donc exemple la vraiment et message boobu bu fort la mais rek li nga xamante ne aussi actualité la foog ñu waxtaanee ko euh, parce que euh, tey jii nii dañ ne coronavirus léegi bu ñu ne coronavirus nag euh, troisième vague la première vague ñëw na fi deuxième vague ñëw na fi ngeen sentir ko bu baax yéen ñi nga xamante ne yéenay yëngu si wàllum événement donc nag tey li nga xamante ne am na euh, mooy troisième vague ngay nekk ay porteur de voix ministère de la santé et de l'action sociale tey ñëw ne teg ay gestes barrières ñuy moytu du moytu du moytu ba tey jii euh, mbas mi ñëwaat suñu kaw ba ñu am ay 1000 cas mais li nga xamante ne tey jii nii moo la si euh, mën naa ne moo la si moo leen moo leen ci gën a intéressé yéen artistes yi tey jii nii nekk si art bi mooy buñ ne tey coronavirus ne dañuy reconfiné waat. problème bi ngeen xamante ne amoon ngeen ko ngeen toog lu yàgg liggéeyoo leen ngeen toog lu yàgg demoo defoo leen benn événement mu métti woon loolu tey bu ñu reconfiné waatee est-ce que tey jii nii impact boobu noonu mun naa am si yéen di ngeen ko mën a supporter ak lan nga mën a wax askan wi si lu ni mel. waaw laaj nga lu am solo moo tax avant ñuy répondre sax dañ lay féliciter. Mm-hmm. ndax caat. am na ñoo xam ne mm-hmm. boo bu la invité mm-hmm. seen benn laaj rek mm-hmm. da lay siggil ndax ñi lay seetaan dañu xam ne du du du n'importe qui sama daa mën <laughs> mais bi euh, bi ñuy arrêté affaire yi woon na métti woon na ci benn côté muy ku ci mel ni man bu dee lu jëm ci man mën na bañ a metti mais dafay am ay benn nit ñaar yoo xam ne dafa am luy juge ci yow di dem ci ñoom te moment yooyu metti woon na mm-hmm. torop dama ci waxtaan ak sam benn xarit malik mm-hmm. Malick Fall maa ngi koy nuyu dañu toog korité bi passé mu ne ma njóobu ma ne ah mu ma foo nekk dama la soxla quoi Malick xam naa mi ngi suivre. mu ne ma non njóobu attends ma ne ah mu ne ma danga ma dénk xaalis ma ne ko waaw mu ne ma mais koy séddale séddale séddale séddale séddale séddale la naa la woo quoi ñu waxtaan parce que. ma ne ko Malick mu naa ma ne ko toogal mu toog ma ne ko xanaa lu fi newul mm-hmm. lu fi mënti ñëw ragalu ma ko bokkoon nit ñi soo dama waxtaan ak moom sori mm-hmm. ndax moom daf ma bëgg ndeysaan daf ma bëgg mm-hmm. te feet yi fi nekkoon ci jamono jamonoy covid bi nga xam ne ñu bari mënuma leen woon jox même bu dee téeméer. Mhm. moom métti. Mhm. moom métti. Mhm. kon ñaanuñu yàlla loolu amaat. te loolu sax yaakaar naa ne yaakaaruma mu amaat parce que ñun ñi tam di yëngu ci wàllum euh, comme le genre suñu métier. ñun aussi duñu n'importe qui ci dëkk bi. te dañu am famille. Macky dafa am famille. ñun dañu am famille. di leen dundal am ñu yaakaar ci ñun. ñun toog ñun duñ waaw man de maa ngi ciy woo képp koo xam ne rek ci loolu ngay yëngu mm-hmm. duñ ko arrêté waat mm-hmm. incha allah buñ ko arrêté waat mm-hmm. donc accepté woo leen li ngeen xamante accepté ko reconfinement dañ ne troisième vague ñaaree am ci lima ma jàpp mooy bi fi nekkoon moo explosé à cause des rassemblements wala soit bu bees la bu jóge feneen dugg fi mhm. bu dee bi fi nekkoon moo explosé à cause des rassemblements rassemblement yi fi gën a mag yi am récemment yëpp gouvernement bi ñoo ko def effectivement